ah et règlement. loi loi et règlement dans mm. leur stricte rigueur. Mm-hmm. xam nga euh, waxu détournement de deniers publics yooyu euh, bi le pouvoir donc la euh, l'APR benn Bokk Yaakaar ñu au pouvoir ñu épinglé Karim Wade épinglé Khalifa Sall ñëpp ñi nga xam ne ànduñoon ci Benno Bokk Yaakaar dañ doon wax c'est une chasse aux sorcières c'est pour éliminer des ennemis des adversaires politiques mais kàddu suñ naataange réew mais kenn peut-être yeggul fi ñenn ñi yegg mais ci plusieurs médias nee nañ suñ naataange réew ne sera jamais solidaire d'un prédateur ou d'un receleur de deniers publics mmh. que suñ naataange réew li mu wax mooy ñi ñu jàpp épinglé leen pour des fautes avérées nañu des ci biir ñu jëli ñi ci des mm-hmm. dugal ci biir mu bañ a nekk par par parloo tànneef par parloo tànneef aussi simple que ça. Mmh. donc suñu suñu suñu suñuy kàddu ci espace bi clair na donc euh, dañuy ñaan yàlla donc mu bàyyi ñu fii donc doyen aussi dafa tudd projet. waaw foofu laa bëggoon euh, ñëw sax pour nga répondre ci. voilà donc suñu naataange ci ambition la juddoo ak générosité bu ñu xoolee les parti politiques parce que mënuñ fi toog te duñu comparer il faut ñuy comparer pour que sénégal ñu seetaan xam. xëy na niveau d' analyse bi am nga ko. soxloo mu jox la tous les éléments mais ñi ñuy seetaan dañu soxla am élément yi. APR fan la juddoo. frustration. PDS. PDS ci boppam ci UPS na ne nest pas. Mhm. donc parti Sénégal yi ñu fi xam yëpp dans l' espace. frustration radiation démission. Mhm. uniquement suñu nattaange réew n'est pas né dans ce contexte. suñu naataange réew ci yéene askanu Sénégal lu baax liggéeyal leen ci la juddu mësuma am kartu benn parti bu Sénégal mësuma militaire fenn mhm. parce que rigueur bi nga xam ni moom laa jàpp ni moo nekk ci man gisuma ko ci jeu politique bi sans nul doute am na yeneen acteur yu am la même rigueur mais dajeeguma ak ñoom bis bu ma dajee ñoom ànd ak ñoom parce que cette rigueur la duñ ci transiger c'est pas parce que euh, ñun ñoo bëgg am lu taxawee mais sénégalais yi pour li ñu bëgg ñu jot ci ñu am ko mais il faut cette extrême rigueur là et à tous les niveaux tey jii suñu mbokk yi lan la ñuy xaar mais dund gi metti na ci réew mi mm-hmm. dund gi cher na doyen daf ni jomaa euh, Diomaye ak Sonko du ñu régler problème mu sénégalais certes mais quand même dafa am loo xam dañ leen ciy xaar. Mhm. d'autant plus que dañu ko diggee wax loo xam seede loo fekkee diggee loo mën. bëgg nguur gi warul tax nga yëkkati kàddu yoo xam ne yow leer na la ne bis boo demee ba jot ci mënoo ko. benn bi ñun fi lañ juddoo fi màggee. président mooy romb noonu rek. fi la juddoo. ma fi lay jaar. fi màggee. <laughs> mais waxu góor jigéen par exemple. waaw ni mu fësee depuis présence su Pastef dans l' espace public mosu ko am ci Sénégal. ah bon nekkuñu ay xale nag nekkuñu ay xale n' est ce pas góor jigéen franc ce débat là n'a jamais été haut. aussi vif dans le pays ba ñuy jiñ président de la république que ni dafa bëgg a légaliser. Mm-hmm. est-ce que jiñoon nañ ko euh, le président Abdoulaye Wade non n'est-ce pas. Mm-hmm. Senghor non. Mm-hmm. Abdou Diouf non. Macky Sall lañ ko jiñ donc c'est un débat qui est d'une très grande acuité dans le pays. dans le même temps le nouveau régime ban autorité étrangère dafa njëkk recevoir donc duñ ci dellusi ki ñuy xaar Jean-Luc Mélenchon romb na ci soutien LGBT il appelle au vote de loi justement pour que transgenre ah, yi mën a mm. euh, évoluer euh, donc def seen ay choix avec une très grande donc contradiction yooyu bu ñu ko déggee donc vraiment euh, daf ñuy jaaxal parce que en ce moment là dama naan président de la république mais neel xale mais franc-maçon ak góor jigéen ayul aayul et je le dis haut et fort nee leen aayul parce que yow ñoom nga njëkk a recevoir ci réew mi. mais ñu euh, fekk tey Diomaye ak Sonko mën nga ma mën nga